Ya karena ne waxtan wi tay liñ warona wax lepp sëñ Fallou Ndiaye wax nako ko te yaakaar dañu warona wax ana kan moy imaam biñu ñu ne ñu ne ko kaay loolu mooy man yaakaaroon ne li tay du kaddu waye nak man ta ñak kon mo tax ñu yëkkat suñu kaddu kon ala li fi wax lepp waxna ci diine. wax na lan lañ mën a nekkee wax na ci nit ak doomam wax na ci jigéen ak boroom këram muy wax joo xam ne lépp ñëpp dégg nañ ah li ñu wax mooy dañoo woote fii li ñuy wax dañoo bëgg buñ ko waxee kenn ku ne léegi jàpp ndax yaakaar naa li yàlla suñu borom di wax fa sàkk fay na si crétan fahul mu'minin kon dañuy fàttalente moo tax saa su ne li ñuy wax ñu di ko wax di ko waxaat kon fàttali te ñàkk ndax yàlla mi nga xam ne moo bind doomu aadama xam ne doomu adama ni mu gaaw a moo tax mu ñu bëgg saa su ne ñuy fàttalante kon lépp lu ñu wax fii nañ muy ci wàllu jigéen na jigéen xam mooy kan ba bu demee léegi mën a xam nan lay dëkke ñu changé suñu am comportement yi nga xam ne lañ yor te fas yéene tënku ci li nga xam ne léegi mooy suñu di suñu ndigal yi nga xam suñu borom moom lañ sant jigen wacce wuñ ko mu nek ko xamne ku suufus la jigen dañ ko wacce mu nek ko xamne legi mo jur suuf bepp lu mën a doon bu ca andul àndul ta soti kon jigen dafa jitu ci lepp kon loolu jigen war na ko xam ah, muy jigante njabot gi nga xamne lay gu nek ci kër gi mu wara a njabot gi kenn ku ne legi mu war la place fi nga wara place ta buñ fi joge ñu xol lepp lo xamne luy jëriñ la ñu teg ñu teg ci suñu njaboot gi ndax yaakaar naa ne yar bu baax mooy tax nit ki am lam bëgg nit ki lu mën a am te rek dafay mel ne amul dara kon jaboot gi nañ leen teg ci yoonu siraatal mustaqim di leen ci gindi leen ci tokki leen ci léegi ba bu ëllëgee duñu xam lu dul loolu loolu mooy suñu ndam te loolu mënuñu ko amee fenn ci lu jigéen ñi jiitu ci ndax ñoom ñoo nekk ci kër yi ñoo nekk ak gone yi ñoo war ak gone yi ñoo wara a jubbanti kon loola nañ ci taxaw bu baax. di ñaanal xalif général des Mountakha des Mourides sëñ Mountakha Bachir mu yàgg te ak mboolem xalif généraux yi di ko ñaanal mboolem taalibe mu ne ci àdduna rawatina Sénégal ak suñu dëkk bi du Touba. di nuyu waa Ndindi di ko teg ci loxob kilifa yi ñu fi fekk ak jigéen ñi ñu fi fekk. di len ziaré ci koor gi di len balu ak di len bal ak di jël nuyo bi ñi andal ñepp wa réseau des femmes té yëmu jo bokku ci ak jigen ñi mu andal, ñuy jigen ñuy jàppale président Macky Sall ay ñay xara yo xamné développement rek ci lañuy dox di jigen ñi am fulu ñu am fayda ñu am jom ñu gëm seen bopp ñoo xam ne liggéey ñàq jaruñu le seen askan rek molen leen taxajuk di rafetlu bis bi di ñaan yalla ñu fekk ko ay ay communicateur traditionnel yi ñep de jël nuyo bi ko tek ci aja loxob yëmu jóob mi nga xamne suñu andando la di jappelé président tek ko ci fulla ak jom ak ngor ku gëm limi def na xamna ne kep ko xamne si da ngay jog du upp di dox ci développement te politique du lenn lu fexé ba sa askan wa nga bokal ñu fexé ba jot seen ak seen yelleef ci nguur ga te ci loolu ci lañuy ñuy xëy di ci gont bu ñu paree dellu ci seeni kër di ñaanal yàlla képp koo xam ne yaa ngi teewe bis bi déwénee nga fekke ko yàlla yokk saw fan may la gudd fan ak wér ak wérle ba xéewali gën a saawaan baawaan di ziar ñëpp di gërëm ñëpp nag ku ma fàtte rek nga xam ne xel moo motul ziar nañ ñëpp. di jiital ci nuyoo bi borom dëkk bi muy chef de village ci sëriñ bi dénk dëkk bi. di sunu waajur sëriñ alaaji Njaay ñu ngi lay nuyu dina la jox ci wàccuwaay di nuyu imam bi nga xam ne bu yàgg ba tey mi ngi ci kaw toog nuyu soxna maam kenn mi nga xam ne moo fi toogoon léegi di wax ak ñi mu àndal di nuyu euh, Basiiru Gay ak délégation bi mu àndal di nuyu soxna aadama Dieng ak maam Ngour Aaj ba ci Pape Fall ak Naar ñoom ñëpp ñi ci kaw ku lim juum nañu ma jéggal ndax temps bi dafa xaw a gàtt tey nag ñu am mbégte ak kontante di leen santaat yéen jigéen ñi ndindi yi ndax lii bu amee yéen a yéen ko xalaat fexe ba bis bi réussir vraiment lii day wane ne benn ngeen te lii day wane ne su ngeen jàppoo lu ngeen yootu rek man caa jot kon booloo bii dafa am solo ndax jour bi ngeen ñëwee suma kër laa leen wax li ngeen di def na ngeen fexe ba ñëpp bokk ci waxtaan leen ci ñëpp boole ci ñëpp ku ci ne lam ci am di ab cëram na ngeen ko ko jox ngeen bokkandoo ko def ko te yàlla tax muy édition boo xam ne édition bu jaar yoon lay doon bu déwénee ñëpp a koy yàkkamti kañ lay doon kañ la bis rek la ñuy wax loolu bi mu amee. jot naa même Abdou Bigué waxtaan ceeg moom ne ko nañu jàppale jigéen ñi ndax ku ne xam na ne bu yàgg ba tey góor ñi rek lañ ciy dégg tamit ah c'est normal it léeg-léeg nag ñu wax jigéen ñi ñu organiser seen yëf tamit ñu xool lañu am ci suñu alal ñu dooleel leen ko ba bis bi réussir nii kon Abdou Bigué ñoo ngi la ciy sant ci sa taxawaay ndax jàppale nga jigéen ñi tamit dooleel nga leen donc di sant Baba Ndaw mi nga xam ne mooy adjoint coordonnateur rafet wi nga seqoo nag

ñu bari bu ñu may wax sax dañaan naan Moustapha Seck Ndindi kon personne kenn ëppaleetuma fi donc muy lu leer kon boog defe naa ne kenn ku ma gën a yàkkamti développement dëkk bi amul su ma sañoon lu ma am rek def ko ci dëkk bi su ma sañoon lu nit di def rek ci dëkk bi. donc man soxlawuma wàll fenn fu wàllu ndindi donc kon ndindi ak li ko wër na ngeen gën a takku liggéey lu ñu am dooleel leen fu ñu xam yóbbu leen lu ñu man defal leen. dana leen jëmale kanam lii moom lu ama am solo la donc nañu góorgóorlu ci liggéey bi comme ni ko alaaj Ndiaye Cheikh Ndindi waxee chef de village tamit ñëw waxaat ko muy lu am solo ci yar ci yar ci yarum gone yi ak éducation parce que ab dëkk boof bu jigéen ña booloo yar xale yi rek dëkk ba jëm kanam ndax xale yi tey ñooy yor réew mi ëllëg ñooy doxal dëkk bi ëllëg ndax mag ñi dañuy dem gone yi ñoo fiy des kon boog nañu fexe ba éduquer xale yi ba xale yi ba xale yi am éducation boobu loolu la bëggoon di ñaanal Serigne Abdou Fattah Mbacke mi nga xam ne tey moo yor dëkk bii di nga xam ne sëñ Abo Falilu moom la ko jox mu yor ko ñoo ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool yàgg ñoo jiite di ñaanal Serigne Abdou Karim di ñaanal waajuram mu baax wii fi génn fan yële jàll soxna Maawa Fay suuf oyof ci kawam Serigne Fàllu mi nga xam ne mooy ab sëriñam gàttandu ko xare ko ca àddina yi yàlla xare ko ca àjjanay firdawsi ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm di bañ a guddal ndax ci weeru koor la jërëjëf ñoo ngi leen di sant leen. yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñaanal xalif général des Mourides sëriñ Mountakha Mbacké yàlla yàggal ko fi lool te wéral ay cëram te ñu yëkkati ñaan googu ak ziar gi teg ko ci loxol. Sirin Abibu Mbàkke mi nga xamni tay mom la yalla dogal tay mu tok fi toogaayu khadim rasul ci bir jotaay bi di sakku mu tegal ñuko ci loxop serigne Abdou Fata Mbàkke mu tegal ñuko ci loxop serigne Abo mu ag ba ci xalif murid des Mourides di profito ci occasion bi di ziar tay ñaan ñaanalit wajuru serigne Abdou Karim Mbàkke Makarimal ahla mi nga xam ni génn na àdduna fan yi ci ginnaaw suñ borom yokki leeram te taas ñu ci barkeem di wax ni Moustapha yow ak jigéenu Ndindi delloowaat ngeen la sëriñ bi bëggoon ci ak njabootam fii ci Ndindi ndax ku ne xam na ni sëriñ Fàllu lépp lu mu gënoon a bëgg ci àdduna mooy dignité fulla fayda mànkoo doon benn te tey ku ñëw ci mbaar mii xam nga ni jigéenu qualité fi ne góor yi qualité fi ne mais ñu am dignité fi nekk kon Moustapha yow ak waa Ndindi mention spéciale ci seen première édition conférence bi di sàkku ñaanit comme ni ko suma jigéen waxee léegi soxna maam kenn première édition bi bu ne mu nekk édition boo xam ni dana tombeek ni ko waa Ndindi bëggee ñu takkal la ndomba tànk ba nga wara and ak ñom pour mëna défat sen conférence di wax ni nak alaaj Njaay Cheikh Ndindi lim fi wax fay wax yu am solo lool yëpp boko teunké défal ko synthèse ci ni mu défé won chapitre yi dafay daal di indi dialogue kon ku ne xam na ni dialogue mo yor aduna ndax jigéena yor aduna mais dialogue yor aduna tay waxna khadim xaadim ku ne xaadim rasul sa xel dana dem ci soxna jaara buso mais it ku ne jigéen ni president Macky Sall sa xel dana dem ci Mariam Faisal. Sall kon tubab dafa wax ni derrière chaque grand homme y a une grande dame waye nak dafa am lo xamni dañ ko nangu ci suñu jigen ni ndax lo bëgg bëgg a diisoo ak sa soxna te sa soxna gëna jox bopam whatsapp So wàccee mu war la jigé wara wax ak yow amut lu dul benn 500 francs bu mu denc jënde ko connexion nekk ca whatsapp am loo bëgg a wax wax ak moom it da ngay am problème kon El Hadj Ndiaye Cheikh Ndindi waroon na cee dugal programme whatsapp bi ba yéen it ngeen éviter ko am jotu toppatoo seen borom kër yi jotu toppatoo seen doom yi ba bu ëllëgee ñu mën a jur li mën a tax ngeen am yéen ay goro yu baax kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm tey sàkku ñaan. تاي نانال كيب كو في تيو سو ديوي ان شاء الله سون بروم ييكو خيوال الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام نيغي نوي كين كو نيك سو تروم اك سانتام تي بوقا بو ماغ بو سيل بيغا خاميني بن لا تي بوقا ييغا خامني سيرين بو ماغ بي رضي الله عنه مو جوخي وون ديغال نيو سانتي كو نيو في تي ويرو ماغ ويرو سيل دي شهر رمضان المبارك تيرنتي بي صلى الله عليه وسلم وحني من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبك وما تاخر ني نيو في فك في جيجين نيغا خامي ني نيو تخاوال بيس بو ماغ بيسل بي ني جيل كادو غي تي تورو سخنا مام خري موم شيخ محمد المرتضى عند شيخ سونو سيرين سونو كليفه سيرين حبيب مبكه mom mam Cerno ibrahim Faati ndaamal daru djel kàddu gi di tek ci loxo Serigne mustapha sek ci kàddu yu am solo yi nga xamé ni wax nako ci bis bo am solo bi mu jotulil ni ko mboolem ñi nga xame ni no ànd ak président de la république diko liggey liggey bo am solo bii rawatina jigéeni ndindi ñi nga xame ni no djel bis bu nga xamni bis bu reey la muy première édition ñu jaglel ko soxna mam Xari Mbàkke mom Cheikh mohammedou mu wax ni. mi ngi jël kàdduy cant ak kàddu yow di ko teg ci mboolem jigéen joo xam ni bokk nga ci bis bii mboolem jigéen ñi nga xam ne ñoo taxawal bis bi ndax mën naa am am na ñeneen ñoo xam ne ñoo gën a nag jigee mën naa am ñoo gën a na yey ci ñu tudde ko ko ngeen jël ko ko kon mooy yore ni yéen a ngi koy bàyyi xel moom itam mi ngi leen di bàyyi xel kon nee na mi ngi leen sant bu baax a baax a baax ci action yu am solo yi nga xam ne def ngeen ko di ñaan bis bii nag. première édition bii di ñëw bi deuxième édition bii di ñawaat mu nekk bis boo xam ne bis bu réussir lay doon te mi ngi wax ni mi ngi leen di tàllal loxo ci lépp loo xam ne nekk nañ ci incha allah fas yéene ànd ak yéen ndax moom liggéeyal président de la république moo ko ñor liggéeyal Touba moo ko ñor liggéeyal maamam ju baax ja moo ko ñor ci wàllu social lay yëngu te damay wax ni politique moom képp ku lay woo ci siyaasa se wóolu ci wàllu social wóolu bu ñu waxee politique mooy defar sa gox bi nga nekk politique mooy leen mooy dimbalante politique mooy leen mooy mooy yaatal ala kulli xaalin te soxna maam xari képp ku ko xam ci loolu nga ko xam yaakaar naa démb mboolem ci jumaa ji ñi fi def bépp ndox bu amoon jumaa ji démb moom lañ ko joxoon mu mu yor def ci liggéey bu am solo boo xam ni ñëpp sedd nañ ko kon dañu bañ a guddal rek mi ngi sant mboolem jigéen ñi nga xamee ni ñoo nekk ci parti bi taxawal bis bi nekk fii ci ndindi ci conférence bu am solo bi nga xamee ne nag moom lañ taxaw oustaz Alaaji Njaay doon ko waxtaanee. موي مكانه المراه في الاسلام ولا مكانه المراه في المجتمع موي تخاواي بيغا خامي ني جيجين امنا كو تي سوف تي كاو سوسيتي بي داماي واخ ني يونتي عليه الصلاه والسلام دافا واخ ني الدنيا كلها متاع وخير المتاع مراه صالحه ادنا اللي في نيك ليب اي باغاس لا گن دي باغاس نا موي جيجين جو باخ تا ورا اكل عاد تيجي بو ديمي با ريسير ام جيجين تحدد يا ريسير ndax ummu salama keroog bi mu jëlee xalaat bu rafet ba jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa ne moo tax yonent bi rey xeddu yoom watu saxaaba yëpp roy ko ci kon jigéen loolu lan la ci jigéen war a mën a jël kon jigéen daa war a bokk ci li nga xamee ne mooy doxul. li nga xam mu boole maas rek mu doom yi nee nañ fi teewal di ziar baax mbokk yi fi teew yëpp Oustaz Baba Ndaw mi ngi fi teew waaye di nuyu bu baax chef de village bu njëkk yi Serigne Alaaji Njaay waaye di nuyu mbokkam ñi nga xam ne ñoo fi bokk nekk yëpp di nuyu mbokk yi nga xam ne man soxna yi woote bis bi di leen ziar baax di sama nag maa ngi baax ak yi ñu bokkal barab bi yëpp di nuyu sama frère Basir Gueye te mu wàcc fi léegi def fi kàddu Ndaw sëriñ Cheikh Ndaw ngeen ñëpp bàyyi leen fi di leen jaar di nuyu mboolem fi am naa yéene teew sa kanam jox la waaye asalaamaaleykum wa rahmatullah mooy kàddu gi nga ne mat na ñëpp ku lim nag man ngaa bañ a lim waaye man ngaa bañ a matal kon Serigne Moustapha Serigne Thiaw tudd na mi ngi lay nuyu yaa jigéen ñi ngeen topp liggéey bii ngeen def liñ jën jën ji nee na mi ngi am mbégte bu baax ci boole gi ngeen ko boole ci bis bii nga xam ne mooy première édition ci soxna yi ñu taxawal te du mel nii waaye xam ngeen ne fan yii waajtaay nawet boo xam ne li nga xam ne ci la nekk yi nit yu bari ay kilifa yi ko yónni ba tax toogaay bés bi ndax it euh, maanaam Serigne Moussa Moustapha moo ko ne as góor gënewul morom bi lu mu ko yëgati bu ko delloo kon su ngeen ko yëgee ba tax ngeen ñëw ba ci moom li war ci yëg mooy mu ñëwaat ba ko xam nga ne mënoon na fee nekk bu ci ci des ko dégg ci yoon wi waaye nag avant soo ne bu ko bëggee mënoo ñàkk a def nekk te yoon wi ñu nekk dafay loo xam ne euh, boo lim ci ñoom tey dafa def suba ndax lépp ko yore te mënatu faa ñàkk a leen tax nit ñi dañu lay yónni pour ñu yónni nag nga xam fa nga jëm da cee baax loolu mooy ay tànkam ba taxoon ni nekk ci yëngatu bii bëgg na képp ku ci nekk lépp loo nekk doon na ci mu doon xam mu ko doone xam na ñëpp ko ci dara yëngu àdduna moo tax mu yebal ndaw yu ko noonu waaye moo tax mu yëngatu loolu Euh, ay ay ay xarit bi yu am solo muy Modou Mbaye Ndiaye yi ak Sanda bu ñu leen jàpp ay jëwel dama koy wax toujours ne leen li yàq nañu mooy jàppal ne bu tàllal dañuy ak jëwel nga doon jëwel bu jëkkoon mooy jëlaat dafa ak bopp jëwel bu jëkkoon mooy jëwel am na day fekk lu yàq di ko waaye bu fekkee dafa am ñoo xam ne dañoo jàppale ba ñun ñi ñoo xam ne jàppale nañu kon dafa fekk li ñu nawee il faut ñu yëkkati ñu suñu kàddu sant yéen ñi nga xam ne sant nañ leen. sant sant yi nag du bëri ñu ngi sant a baax a baax bu ko teg ci loxo wala ci bakkan bi nga xam ne moo fi yebal ñu koy a baax di sant a baax. waaw sax naa may sant nañu ko ba léegi ba léegi lañu. waaw baax a baax ku ko yëgal borom yëpp day sant nañu ko bu baax a baax ñuy sant lu weer yi nga xam ne ñoo nekk dëkk bi jigéen ñi di jàppale ñoom ñu ndax suñuy maam lañ suñuy kilifa ñi suñuy yaay lañ ñi suñuy maam lañ mais ñoom ñëpp bi ñu waxee gis ba tey kenn kooku bi ba bu ñu xëyee ñoom ñëpp ñu ngi jàpp ñi jëm fii ñi jëm fee ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di sant soxna May Jaw bu baax ak soxna Ndiaye sant nañu ma bu baax a baax sama fànn ñoom ñoo koy sant yaa wàllu mag ñoo koy sant ñu ko jóg sama njaay bi ñoo koy sant yaay bi rek ak soo ngay sant Ousmane Ndiaye di sant jaar ñaar ngay waat yaa tey ñu ko sant bu baax a fi taxaw yéen ñëpp maa ngi leen sant bu baax